Je démissionne d'une justice qui a démissionné. C'est le propos du juge Dème, ancien magistrat du Sénégal. Comment peut-on donc se soumettre à une justice pareille Pas nous, en tout cas. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. C'est le titre du livre de Claude Butin, juge d'instruction française à la retraite. Pourquoi devons-nous donc être l'exception du monde Chers compatriotes, nous voilà à un tournant décisif de notre démocratie. Le dossier Sonko Adissar, qui s'est soldé par un complot politique ourdi, dont les preuves sont établies, est loin de connaître son épilogue. le renvoi en procès du dossier par le doigt des juges d'instruction à la chambre criminelle constitue l'énième élément du puzzle dont l'objectif est connu. Liquider un adversaire politique encombrant par la voie judiciaire, à la personne d'Ousmane Sonko. Ce que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Le président Ousmane Sonko ne sera pas la prochaine victime dans la longue liste des sacrifiés du régime de Macky Malgré tous ses efforts consentis pour la manifestation de la vérité et sa bonne foi, les comploteurs ne semblent pas être intéressés par l'exécution de leur funeste plan. Mais c'est peine perdue. Le doyen des juges l'a envoyé en procès. Mais notre position est claire. Le président Ousmane Sonko ne doit pas aller au procès. Ousmane Sonko n'ira pas au procès. Aller à un procès dans ce dossier, c'est se livrer à l'abattoir. Depuis l'arrivée de PASTEF, les patriotes dans le landerneau politique, le régime du président Macky Sall a perdu la raison. Son leader persécuté, des militants arrêtés, puis emprisonnés, des assassinats perpétrés. La haine comme l'unique argument à opposer aux idées de PASTEF. PASSEF est le parti politique le plus attaqué, le plus traqué et Ousmane Sonko le plus diabolisé. Mais rien ne nous détournera de notre droit chemin. Sonko est notre candidat à l'élection présidentielle de 2024 et nous ferons de lui, Inch'Allah, le cinquième président du Sénégal. Par ailleurs, Je ne vais pas terminer mes propos sans pour autant parler de l'actualité qui fait, n'est-ce pas, la une ces derniers jours à Kungal. Il nous est rapporté par des quotidiens sénégalais des propos que le maire de Kungol, en l'occurrence Alun Badarali, aurait tenus. Nous avons déjà acheté nos linceuls, dit-il. C'est le propos d'un maire impopulaire, en chute libre, Il ne lui reste qu'à se réfugier derrière les attaques personnelles pour s'accrocher à une responsabilité qu'il est impossible d'accomplir. S'il a déjà acheté, nous lui rappelons que nous l'avons non seulement battu dans son propre bureau de vote, mais également dans, tous les, dans tout le centre de vote de l'école 5. Donc je dis que ce n'est pas la peine de faire une prostitution politique pour avoir un poste de nomination. Au maire Alun Badarali, nous disons il n'a pas besoin d'acheter euh, son lait Nous sommes déjà partis l'enterrer vivant. Et notre commune n'en s'en portera que mieux. Merci. dañoo bëgg xamal waa waaye tamit xamal Macky Sall mi ko jiital mi ko jiite que projet bi nga xamante ni tey moom lañ bëgg contre Ousmane Sonko. du ñu ko nangu du fi amee tey du fi amee suba di sàkku nag suñu leader Ousmane Sonko que procès boobu bu ma ko wuyu pour ñaari mbir Olof Njaay dafa wax ne ku ndëbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daa ba fàtt tey ñëpp xam nañ ne Macky Sall moo taxaw wax ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam opposition ci Sénégal dana ko yemale ci ay kàddu loolu mu wax nag da koo gëm. ndax ci lay xëy ci lay gont kon bu ñëwee ci procès ci docu ci dossier politique mu tëj ci Karim Wade yàqal ko ay droit politikam am tëj ci xalifa Sall yokkal ko ay droit yàqal ko ay droit politique am kon bu jógee tey jëm ci Ousmane Sonko ñun peuple bi ñun ndaw ñi danañ taxaw bañ ne du fi am tey du fi am suba rawatina nag mu nekk dossier boo xamante ni complot politique bu ñëpp teg seen bët la bu fekkente ni li rapport médical bu wax doyut bu fekkente ne ndaw si ndaw si ko tuumaloon li mu wax ci audioom doyut bu fekkente ne ndaw si moom salon bi li mu ën ci ay seede doyut waaye bu fekkente ne également lépp loo xam ne ni Sénégal yi gis nañ ko tam moom mu indi ko en tant que en tant que accusé indi ko ci devant le juge wane na moom kat il est victime d'un complot doyut le juge Maham Diallo pour mu jël dossier bi classé ko sans suite mun dañuy taxaw ne bu mu dem wujju tey bu mu dem wujju suba ndax tey li nga xamante ni moo am mooy parce que dafa indi lu bees ci ci ci plan ci politique Sénégal mooy politique ci xam-xam mooy politique ci njub mooy politique ci waxante dëgg waaye mooy politique ci gëm sa réew te bëgg sa réew loolu nag ñoom dañ ko manqué dañ ko raflé ndax liñ tàmmoon Sénégal yi mooy kàcc luubal yàq saytaane waaye tamit cultiver benn haine maanaam benn soxorante ak benn bañante biir Sénégal boo xam ne amul fi place tey amul fi place suba loolu nag li koy répondre lenn kese la. mooy ñun sénégal yëpp ñu taxaw lànk bañ na président Ousmane Sonko ñoo ko tànnal suñu bopp te li mu laaj ci taxawaay li mu laaj ci jëf li mu laaj ci wax danañ ko def incha allah ba au soir du 24 au soir de 2024 au mois de mars ñu mën ko fal dugal ko pale incha allah loolu nag buñ ci paree li ñuy wax mooy patriote yëpp nag rawatina ñu nekk fii ci Saalum nañu pare dégloo nañu pare dégloo. su ndigal jibee lu mu laaj danañ ko def parce que du ñu nangu tey du ñu ko nangu suba ñu koy sacrifier comme ni ñu def ak ñeneen ñi ma cité ba pare su ma paree ci chapitre boobu damay jàll ci li comme ni ko su ma suma coordinateur waxee li fi xew fan yi ci ginnaaw gis benn maire boo xam ne biñ la fal ak léegi daanaka ñëpp ñu topp di la mbamb mooy commerçant mooy keneen ak keneen tey nga xëy na yaa war dal ci kew président Ousmane Sonko dama ne la ñun duñ yàq sa temps ci yow ndax ki ngay dal de ay gonem. ñoo la dóor weer yi ci ginnaaw sa biir de vote dóor la sa centre de vote kon ñun duñ yàq suñ temps ci yow taxawaay bi ñu war am ba yokk suñ dooley parti moom la ñuy am taxawaay bi ñu war a am ba sàmm suñ président kenn du ko laal moom la ñuy am donc patriote yëpp nañ pare dégloo incha allah merci beaucoup. asalaamaaleykum waa ñëpp euh, tey nag ñëw Abdoulaye Diop nekk. le président du MONEP mooy mouvement national des enseignants patriotes du département de Koungheul tey nag ñëw pour naqarlu mais ñëw tamit pour teg ñëw pour naqarlu li nga xam ne moom moo jot a xew ci Sénégal te nekk na loo xam ne kenn du ko jàngal kenn ndax ñëpp ci teg seen bët muy li nga xam ne moom moo xew ci dossier Ousmane Sonko aji Sarr di wax ne Ousmane Sonko. du dem procès lu tax du dem procès mooy lenn dossier bi fu mu toll ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne lii ay yëfi caaxaan la ñii ñëpp xam nañ ne lii ay waxu nax sa kandang la ñun nag depuis le régime depuis l'événement de ce régime lan lañ constaté mooy à chaque fois Ousmane Macky Sall buggul opposant opposant bu génn mu de la opposant bu génn mu liquide la mais bii nous sommes au dernier virage Ousmane ko kenn du ko liquider te procès du ko dem te incha allah il sera candidat pour les élections présidentielles de 2024. en plus de cela il va remporter les élections te mooy nekk suñu cinquième président de la république incha allah. vous savez moo nekk ñu dañoo sonn lu tax ñu sonn mooy souvent jàngalekat yi ñoo gën a sonn ñu suñu xale yi dañ leen di jàngal ne bu leen fen suñu xale yi dañ leen di jàngal bu leen violent suñu xale yi dañ wax dëgg. mais lu ñu leen di jàngal souvent li nga xam ne moo koy yàq c'est avec euh, euh, jikko yi nga xam ne comportement yi nga xam ne souvent mi ngi nekk ci nit ñi nga xam ne ñoo nekk avec ce régime la ndaxte ñii duñu wax dëgg ñii dañuy gis dëgg teg ci seen tànk ñu ne nag on est là pour combattre tous les enseignants patriotes yu nekk ci biir Ousmane Sonko ci biir Pastef nous sommes prêts pour combattre ce régime la et je pense que foofu laay terminer samay kàddu Ousmane Sonko sera le président il n'ira pas au asalaamaaleykum euh, ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw euh, jiital nuyoo bi suñu kilifa président Ousmane Sonko di wax ne lii dafa lii dafa jot ndax la JUPES mooy jeunesse patriotique du Sénégal di ndawu parti bi bi nga xam ne nii euh, pare nañ ñoom pour jàppale le président Ousmane Sonko ci projet bi di wax ne président Ousmane Sonko. ñun ñoo koy aaral suñu bopp mooy la JPS ku wax la JPS wax énergie ku wax la JPS wax avenir ku wax la JPS wax xam-xam donc JPS bu Koungheul du des ginnaaw ci projet bi président Ousmane Sonko def na testament mais ñun tamit ñu ni ndaw Pastef Koungheul def nañ suñu testament wax ne le président Macky Sall le président Macky Sall je répète encore bu fekkee ne bëgg bëgg na yeggali mandaam bu mu dugg ci ay complot ndax président kilifa la kilifa du comploté moom lañ jox suñu lépp donc na na xam ne procès bi mu am donc JPS bi ne nañ président son Sonko bu mu dem procès parce que gisuñu njëriñu procès procès bu ko demee rek mooy mu ngi moom mu ngi xaru donc ñu ngi invité bépp jeunesse bu nekk ci Sénégal ak bu nekk ci jaspora bi ñi prêt di xaar la moo d'ordre bi président Ousmane Sonko xam ne JPS du des ginnaaw dafa leer dafa leer Sénégal yi def nañ procès bi def nañ ko ci marché yi def nañ ko ci koñ yi def nañ ko ci boutique yi def nañ ko partout ndax ñëpp xam nañ ne lii dafa nul kii xool Aji Aji Sarr nga xam ne moom moo am prérogative moom la yàlla may mu mën a summi Aji Sarr mooy docteur Alfousseyni Guèye ci rapport médical am prouvé na nettement que ndaw si kenn yeggul ci kawam. suñ ci ci jour bi mu wax ne président Ousmane Sonko seq na ak moom dara donc lii mbiru politique la te mbiru politique politique moo koy réglé ay xale yu ndaw leen am énergie am doole pare nañ ñun pour gunge le président Ousmane Sonko incha allah mu nekk suñu cinquième président donc JPS Koungheul pare na. incha allah. ci li ñu nekkoon démb ak bakki démb ba tey ñoo ngi ci. dee rek moo ñu siy jëlee président Macky Sall lu mu bëgg rek dinañ ko ci fekk si bu fekkee jàmm la bëgg ñu dem ak moom si jàmm bu dee xeex la bëgg ñu dem xeex ak moom waaye duñu nangu mukk muy faagaagal suñu président ndaxte moom nguuram gi dafa metti fitna rek la fi nekkee li mu mënul def li mu bëgg li mu def Karim def ko Khalifa Sall moom la bëgg a def président Sonko te duñ ko nangu président Sonko nag ni mu amee ngoru taxaw joxe joxe bakkanam ñun tamit en tant que jigéenu Pastef joxe nañ suñu bakkan bu jaree ñu dee ñu dee bu jaree ñu lu lu bëgg rek bëgg nañ lu ko raaw pare nañ